du pays ndax sénégalais yi leen nañ euh, nga nekk koo xamante ne boo waxee nit ñi dañ lay déglu ban message nga mun a envoyé sénégalais yi mais surtout homme politique yi nga xamante ne fu ñu toll ñu ngi xëxante man dama bëgg ñu wax ni man amoo benn carte de membre ci benn parti politique du pouvoir du opposition waaye sénégalais laa mhm. nañ wut ci réew mi jàmm ñiy wut ak ñi am ba pare ñi nekk ci nguur gi nañ xam ne ci ku jege lañ newoon te yàgg-yàgg bu dee trois cent ans sax dañuy génn ci nguur gi dem Senghor jaar na fi Abdou Diouf jaar na fi Ablaye Wade jaar na fi Macky sàll jaar na fi day dem keneen day ñëw keneen ki Macky Sall di remplacer sax day dem keneen day ñëw waaye dama ne réew mi nañ ko dal ci jàmm nañ ko wut ci jàmm ñi ko am nañ ko joxe ci jàmm ñi koy wuti nañ ko jël ci jàmm parce amul kenn mës a jël nguur mu jaare feneen ku dul ci jàmm réew mi réewu jàmm la nañu jàmmalante képp koo xamante ne nag amuloo jàmm wala wutiloo jàmm wala bugguloo jàmm yal na yàlla def ci sa xol jàmm ba nga jàmmal réew mi Sénégal ndax xam nga lu tax mm. réew mi jàmm moo gis nga ñun ñi nga xam ne politique wuñu politique wuluñu mm-hmm. xoolal bu jàmm amul ci réew mi fu ñuy jëlee fu ñuy defee bii surtout nous vivons au jour le jour wala man je vis au le jour dañu dimbale rek bañ a